asalaamaaleykum mbokk yi xale yi Sénégal Foundation créé nañ ko depuis 2015 ca Canada dina kuréel gi nga xamante ni li ko tax a jóg du leen lu dul jàppale daara gunge ko mbokk yi kuréel gii di xale yi Sénégal Foundation objectif am bokk na si équipe daara yi accompagner oustaz yi wutal leen salaire fexe ba xale yi nekk si condition yu mucc ay li daal mooy seen ëmm moo waral am na nu mbëbatu tabax internat bu mag si Touba Sam projet bu nu mel ñu ngi ko fas yéene def si 500 mètres carrés si coût bu 80 millions de francs CFA wadd bi nga xamante ni lu tolloog téeméeri xale dina leen fi yaax mu doon ay bàyyo wala ay njirim wala tamit ñu seen nekkin métti loolu wala ñi nga xamante ni seen wàjjur seen loxo jotul seen ginnaaw kuréel gii di xale yi Sénégal Foundation fii si biir Sénégal fas yéene am taxawaay ni ñu ko waxee woon si daara yi ak it jële jàppale ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw fexe ba yemal ndox doon ay jumtukaay yoo xamante ni pompe lay doon waaye tamit équipe daara yi ba dongo yi mën a nekk ci condition yu mucc ayib naka noonee ci biir kuréel gi partenariat am na ak groupe bi nga xamante ni mooy groupe parrain ak marraine fii nag kenn ku si nekk da ngay nag pare nii benn dongo jaare ko si ay cotisation yu ñuy amal ngir matal bi les projets mbokk yi bu dell dellu siwaate si projet bu mag bii jàppaleen di xale yi Sénégal Foundation képp koo xamante ni bëgg na si ay leeral wala nga bëgg see def sa participation mën ngaa woote si 77 811 59 94 di numéro orange ak Wave laajteel soxna Fatimata Gueye waaye tamit am na nañu beneen numéro uniquement Wave 117 387 40 60 wala suñu email di Sénégal Foundation station arobase gmail point com sunu site web di www point xaleyi sénégal point org ba tey mbokk yi sunu compte bancaire si banque CBAO 341 77 74 35 01 sénégal fondation seeni taxawaay si daara alquranul karim ngëneel dong la ngir génération bii di ñëw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 émission bi ngeen baaxoo am ni sawtul xaq ngeen baaxoo ci ànd ak seen mbokk Mouhamed Fadel ñu ngi leen di nuyu bu baax mbokk yi xanaa bala ñoo tàmbali rek ñu ñaawlu kàddu yu ñaaw yi nga xam ne moom la kenn ci kilifa yi ànd yëkkati teg ko ci suñu deru yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekk mbooloo moo xam ne yàgg nañ leen a xam ci teengal ak bañ diine lislaam waaye ñoom njëkkewuñ ko mbokk yi gis nga jullit ñi nekk ca Inde ñi ngi dund jahannama diir bu yàgg boobu ba léegi xanaa dama yaakaar ni lii day doog a feeñ rek waaye jullit ña nekk ca Inde moom lañuy dund ci mettit la ñuy dund ci naqar ak torture ak yit xañ leen seen àq ak teeleen a dund seen diine mbokk yi dund wu méttee métt la dund foofu man nga ni bokk nañ ci jullit yi gën a sonn ci sunu àddina yi tey jii gannaaw boo ci génnee Palestine ñoom jullit ña nekk ca Inde te ka leen koy teg du dara lu dul kilifay réew ma mooy gouvernement ba ndax ñoom seen gouvernement fi mu toll dañoo bokk ci diine yi nga xam ne diine yi teengal la maanaam dañoo bañ lislaam ba mënuñu ko xool xoolal lu tol ni Inde ay julli tegu fa nga xam ne dañuy jékki-jékki pakkateendoo ay junniy kër daaneel leen toxal mbooloo moom yóbbu leen feneen te teguñu ko ci daara lu dul ñii ay jullit lañ kon war nañoo jàppale bu baax a baax suñu mbokk jullit yi nekk ci Inde suñu mbokk jullit yi nekk ci Inde war nañ leen a daa mu jàppale leen bu baax a baax ndax ñu ngi dund ay coono te bañ koo dalee dund yàgg na man ba ma ko yëgee léegi war naa mat lu tolloog six mois kon tey jii jullit ñi nga xam ne ñooy riir naan kaddu yu ñaaw yi ñu yëkkati teg ko ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa dama naan am na lu ko jiitu mooy jullit yi ñoo toroxal foofu kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax bu ko defee ñu ñëwaat ci suñu réew ñu ñëwaat ci suñu réew waxtaanee fii lenn ci lu ñu soxal tey ñuy waxtaan lu am solo mooy yomb gi nga xam ni moom la takk soxna war a yomb ci aw askan mbokk yi nañ ma déglu bu baax a baax mbokk yi li ñuy waxtaane tey mooy lislaam ak it mboolem li ñuy tuddee maanaam xadaraat civilisation yi nekk ci àddina bépp soññi ak it daamu ak jàppale gi ñuy jàppale ne li euh, góor am soxna lu war a yomb la ci askan loolu lañu fas yéenee waxtaane tey mbokk yi gis nga yàlla sunu borom subhanahu wa taala dafa bind góor def ci moom yëg-yëg boo xam ne faww day am cofeel ak bëgg-bëgg jëme ko ci jigéen waaye mu bind jigéen it def ci moom yëg-yëg jëm ci góor sunu boroom ci yërmandeem defar dogal aw yoon wu set woo xam ni ñoom ñaar kenn ku ci ne buñ ca jaaree man nañoo satisfaire seen yëg-yëg boobu te yàlla sunu borom du leen ci mere bal dañ ci am ngërëmal yàlla ak yërmandeem loolu mooy lan sëy te l'islam mbokk yi bokk na ci juróomi mbir yi nga xam ne dafa wàcc pour sàmm ko mooy sàmmu askan l'islam juróomi mbir yi ëpp solo yi tax mu wàcc li tax mu wàcc ci askan bokk na ca sàmmu askan askan wi bañ a jaxasoo kenn ku ci ne xam ne diw mooy bàyyi diw diw mooy yaayi diw te mbokk yi fenn la ñu mënta jaar ba sàmm aw askan lu dul ci sëy kon sëy dafa war a yomb góor gu bëgg jigéen soxna yoon yu ñu war a jaar ba ñoom ñaar seen diggante yemb dafa war a nekk yoon yu yomb yoo xam ni lenni jafe-jafe waru ca am lenn jafe-jafe waru ca am loola njariñ li dafa bari dana tax li ñuy tuddee ak mooy dana néew lool ci askan waaye dana sàmm askan waaye it dana tax li ñuy tuddee famille mën a fondewu ci am pénc te dafa bokk ci li li nga xam ni mooy defar societé dafa bokk ci li nga xam ni mooy tax ab société baax jub tegu ci yoon mooy famille bu suudewu famille bu fondewu te famille kenn mënu koo fonde kenn mënu koo suude lu dul ci daganal diggante góor ak jigéen ci ab sëy kon loolu dafa war a yomb waaye ndax lu war a jafe la déedéet wax naa ko léegi est-ce que yomb na ñun ci sunu jamono mbokk yi tontu boobu mbooleem kuy góor mën nga ko tontu fa nga toog mooy sunu jamono ji bokk na li fi gën a jafe takk soxna wala bokk bu ci bokkul it ñi ngi jëm foo xam ni ci kanam tuuti balaa nit a takk soxna dana daj lu mburu dajut ci taal bi incha allah dinañ ko leeral ci biir mbokk yi gis nga ñàkk a takk soxna du fii dong la mooy jafe-jafeem fii ci fii ci Sénégal waaye bari na ci réewi lislaam yoo xam ni seen jafe-jafe mooy takk soxna ngir lan benn problème rekk lañu am mooy xaalis diggante jigéen gi ñuy takk ak diggante kilifay jigéen gi dafa am léeg-léeg ñoo xam ni seen jafe-jafe ci góor mooy ndax am na xaalis walla déet ndax am na liggéey walla déet mbokk yi boo xoolee jigéen ñu baree bare la leen tee sëyi aspect bii ci la bokk mooy ñàkk a gis góor goo xam ni am na xaalis ñàkk a gis góor goo xam ne yor na liggéey bu dëgër léegi nag ñun suñu waxtaan tey dañ koy jëme ci ndax loolu problème la war a doon maanaam ndax sëy dafa war a xaalis daa war a gàllankoor sëy maanaam góor gu amul xaalis góor goo xam xamee gis ni maanaam poosam diisul ndax dafa war a nekk lu gàllankoor sëy waaw wala déet loolu lañu ñu fas yéenee leeral tey tontu bi njëkk biñ ciy tontu mooy déedéet mbokk yi say jaamu yàlla la say jaamu yàlla la segam jaamu yàlla la war nañoo mën a xam ni ki koy def muy góor muy jigéen sacrifice la laaj mooy danga war a jël léppi loo xam ni lu saytaane mën a laxasu la lu àddinay kese kese kese kese kese nar a laxasu la nga jëlee ko tege nele te jël yàlla ak ngërëmam teg ko ci kanam ci kanamu sëy bi nga jublu si bu ñëwee sëy jaamu yàlla la mooy boo xasee ba dugg ci sëy la tàmbalee ca bis booba ba bis ba ngay faatu wala bis ba ngeen di teqali ko lépp loo ci des lépp loo ci def te yéen a ja sell yégal ni mën na laa jural ngërëmal yàlla mën na laa jural it yërmaande yàlla bu dee jigéen nga nooy bi ngay nooy ci sa kanamu borom kër toppatoo gi nga koy toppatoo bàyyi xel gi ngay bàyyi xel njaboot gi dem gi ngay dem ca waañ wa dem gi ngay dem ca marché lenn lu ci ne boo moytuwut war naa mën a tollook góor ga di jihaad ci yoonu yàlla wala góor gi jël alalam di ko def ci yoonu yàlla man naa tollook loolu mbaa mbaa mu ëpp ko kon say jaamu yàlla la nañ ko bàyyi xel góor gi nga xamee ni moo jël alalam di ko jox soxna si ngir mu togg añ dunde dundee ci ak njabootam waaye góor gi yëkkati alalam di jox soxna si ngir mu sol yére góor gi jël alalam di jox soxna si ngir mu takka ngir mu takk ay takkaay yu rafet dërëm boobu ngay jël moom la yàlla sunu boroom gën a fonk ci mbooleem dërëm boo def ak foo ko man di def gis nga góor dërëm bi mu jël jox ko soxnaam mu jënd ci yére mbaa mu jënd ci musóor mbaa mu jënd ci takkaay mbaa mu jënd lekk mbaa mu jënd naan mboolem dërëm bu mu jël def ko feneen ci yàlla dërëm bii la yàlla gën a fonk fuuf ci beneen dërëm loolu góor ñi dañ ko war a xam kon sëy jaamu yàlla wu rëy rëy la woo xam ni du ay caaxaan du ay folklore sëy du nekk loo xamante nii dañuy jékki-jékki organiser xew mu rëy nit ñëpp teew ñu fotowu jël ay sinap après ñu dem mu jeex laa nañ ko bàyyi xel bu baax a baax léegi buñ nee sëy rek njaboot la ñuy war a njëkk a xalaat buñ nee sëy am na diggante góor ak jigéen rek njaboot taxaw na te ku ne njaboot war a xalaat barke boo koy fàggul ku ne njaboot war a xalaat ak mbaax ku ne njaboot war a xalaat lu baree bari loo xam ni yow góor yow jigéen danga ko war a sacrifier ngir njaboot googu seen dund mën a tegu ci jàmm ak salaam waaye seen dund mën a ñëw te dafa bokk ci li nga xam ni moom mooy waral barke ci ab sëy rawatina ci jigéen mooy sëy boo xam ni jafe-jafe ya bariwul maanaam jafe-jafe financier yonent bi dane jigéen gi ëpp barke ci jigéen ñi mooy jigéen goo xam ni ay mbiram yomb na lool jafewut waaye jigéen goo xam ne ba nga koy jël laaju la lu baree bari loo xam ne xaw nga daw yéen jigéen ñi bàyyi leen xel bu baax a baax li may wax yéen kilifay jigéen ñi bàyyi leen xel bu baax a baax li may wax yonent bi nee jigéen gi ëpp barke jigéen ji nga xam ni moo gën a moom la war a gën a yaakaar ci moom barke mooy jigéen ji nga xam ne ay mbiram daa yomb lool daray jafe-jafe amu ci mooy jigéen gi nga xam ni bi nga ñëwee ci moom yow góor ne da nga koo bëgg a jël soxna gannaaw bañ la càmbaree ba xam ne ko am nawleem nga lam la laaj ci can walla ci ay mayak ya ci ajoog yooyu wala lam la nga xam ne moom la bëgg a samp ngir ay xew bariwul boobu jigéen itam bul yaakaar ne mukk teral gi ñu lay teral mooy booy sëy ñu xew-xew mu rëy moo xam ne dañuy tàmbaleet koñ ba koñ tànt boo yaakaar ne loolu mooy ñu teral la rek yaa ngi nax sa bopp loolu du dara lu dul ay manifestation loolu du dara lu dul loo xam ne dañ ko royee ci biti indi ko ci biir réew mi waaye du diine du aada bépp jigéen goo xam ne yaakaar nga ne teral teral jigéen maanaam ki lay takk teral gi mu lay teral mooy ñu xewal la lu commencé koñ ba koñ defal la ay décoration yu rëy samp ay ñaari chaise ñu sinap nga solu suba ba ngoon loolu mooy ñu teral la yaa ngi nax sa bopp te xamal ni borom xel mu tuuti nga soreegoo soreegoo ci àddina gis nga lii ñu xewal léegi ci suñu jamono mooy jigéen bu dee sëy ñu def réception bu rëy boo xam ne dañuy teg ay chaise ay décoration ay hôtesse financé ci xaalis bu rëy rëy rëy bu baree bari boo xam ne manoon nañ cee waajal daw si mu dem kër boroom këram gis nga xew gii nga xam ne moom lañ ko xewal du diine du aada te dafay bokk na ci li nga xam ne mooy waral góor ñi ragala takk soxna te bokk na ci li nga xam ne moo koy jafeel Murtada maag yow bu ñu àndee nga bëggoon a takk soxna te amaana maag yow suñu poos gisul ñu dem ci mambusa mambusa mii ma ngay dem di sëy ñu dem fekk ñu tàntal ko tànt bu rafet bu yànj tegal ko ñaari chaise góor gi toog fii ji mambusa toog fële ñu laajte ni tànt bi lan lañ ci financé ñu ne ah financé nañ ci huit cent mille wala un million def wa léegi ñun ñaar bu fekkoon bëgg nañoo takk soxna est-ce que duñ xalaataan ne ah Mourtada tee ñoo waajaat daa mel ni eh, eh, mbiri gis nga waaj googu nga xam ne moom la ñuy waajaar mën nañoo dox ci diggante bi bàyyi ba bàyyi kañ doon bëgganteel fi mu toll kooku wër commencé waat nag à zéro di tàmbali kon gis nga jigéen ñi dañoo war a delloo si waat seen xel te wàññi xew mu rëy ñi nga xam ne moom la ñuy def ci buñ leen dee takk ndax xaalis ba du jóge ci kenn ku dul ca góor ka te góor fi mu toll nii ci Sénégal góor ñu baree baree bare amuñum xëy te ña ca am xëy lañuy xëy mënu leen a satisfaire à cent pour cent ndax jigéen ñi d'accord nañ ñu toog di xoole ba ba góor ñi di am liggéey ak fi mu toll fi réew mi toll nga xam ne duñ leen takk dañ leen di toog noonu bàyyi leen ñu seetaan rek kenn du takkati soxna ba ba góor ñi di am xëy wala ba ba Sénégal di émerger di di bokk ci réew yu réew yi ñu doog leen takk ñoom jigéen ñi ndax d'accord nañ loolu ah ah ah yaakaaruma ne d'accord ngeen ko kon nañu wàññi seen loxo yonente eh, Seydina Omar da daan wax ak jigéen ñi ne leen moytu leen di laaj lu bari suñ leen dee takkase ndax bu fekkoon loolu teraanga la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ci jiitu fuuf moom ak njabootam te yonent bi mësu koo def mësu koo def kon jigéen ñi ñu delloo si waat seen xel gis nga léeg-léeg ngay gis ñu ñuy tuddee ay star te man ma leen di tuddee ay yambar da gis koo xam ne nee na day takk jigéen woo ay caméra ñu ñëw ñu wane ne jigéen gi muy bëgg a takk kat may na ko xaalis bu bari tegal na ko ci or tegal na ko ci oto man damay laaj sens la am lan nga bëgg a wane yow maanaam loo ñu bëgg a wan loo ñu bëgg wax ndax dañ ñoo bëgg a wan sa xaalis bu bari en tant que acteur wala actrice wala ndax dañ ñoo bëgg a wan ne kii bëgg nga ko bu boobaan lii ngay feeñalee sa mbëggeel xaalis bu bari boo koy may bu fekkee lii ngay feeñalee sa mbëggeel mooy yow dof nga wéroo ndax amul ci àddina boroom xel moo xam ne dana gëm ni mbëggeel ni koy feeñalee mooy joxe xaalis mbokk yi xam nga lan mooy jubluwaay bi ñii ñuy tuddee ay acteurs ak ay stars ñun ba léegi sénégalais yi xamaguñ ne ñoom dañuy caaxaan dañuy fo gis nga li ñuy wane ci seen film yi ak seen théâtre yi chaque jour ma wax leen ko du dëgg du réer mbëggeel gi nga xam ni moom lañuy wane bëgg a wax ni sëy amul benn problème amul benn jafe li ñuy wane ni sëy nit ki bala nga ko kii koy jox xaalis bari ñu ko gëmloo ci seen théâtre yi ba ñu ko gëmloo ci réalité bi maanaam ci suñu vie réalité kon ñoom nañu arrêté nañu xam réew mi ñu dund ban réew la réew la moo xam ni ñu ëpp ci seeni ndaw amuñu liggéey te dañoo am jom bëgg a takk soxna est-ce que ñoom bu fekkee nga xam ne ay référence lañ wala ay star lañ war nañoo mën a defee nii di ko wan population sénégalaise ndaw ñi nga xamee ni ñu lu bari fi mu toll jigéen ñi dañoo gàtt xel jigéen ñi fi mu toll jàpp nañ ni léegi faw jigéen moom pour nga wane ni da nga koo bëgg ca jël lu takkoo takku teg ci loxoom benn doo yam ci loolu waaye faw nga def ab réception bu mag a mag a mag boo xam ne dañuy def ay décoration yu ñàkk fayda yooyu nga xam ne du diine du jigéen ñëpp loolu léegi léegi loolu lañ jàpp ngir lan seen gàttum xel ba boo moytuwut am na ci ñoo xam ne jaral na leen ñu dagoog ñu dogoog ka nga xam ni moo leen bëggoon a takk te ngir lan xewaloo ma lan mooy xew yéen kilifa yi yéen la na ngeen xam ni góor bu ñëwee ñaan si la ñaar rekk nga war a xool mooy gis nga bu la ñaar yi wóoree te ndaw sii di sa doom bëgg na bu ci xoolaat dara may ko ko mu dem yow góor yow mi nga xam ni yaa bëgg a takk soxna jàppal ni lenn rekk mooy xooluwaay bi nga xam ni moom nga mën a xool jigéen ba xam man nga ko takk walla déet mooy ndax baax na bu xasee ba baax bu sa yoon nekkaat ci yeneen mu wasafa kilifa yi nangeen xam ne bu fekkee da ngeen a bëgg seen doom bu leen yaakaar ne mukk seen doom li nga xam ni moo koy jox assurance ak garantie mooy ngeen may ko boroom alal mukk alal mësta neexalub sëy te du ko mës a boroom borom xam-xam yu njëkk ya ak kilifa yu njëkk ya dañ daan wax ni boo amee doom ba bëgg koo may nit na ko may boroom diine ak borom jikko ndax bu ko bëggee dana ko suturaal teral ko te du ko tooñ waaye bu demee yàlla tere ba sunu borom mbëggeel ga mu rocc ko du ko tooñ mukk du ko toroxal ndax dana xool diggante moom ak boroomam même bu xoolu diggante moom ndaw si dana xool digganteem ak boromam kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax al jafe-jafe sëy yi nga xam ni mooy am maanaam góor ñi jot ci jigéen ñi pour takk leen soxna li waral jafe-jafe bi du dara lu dul ay roy dàq diw de bërki démb xewoon na kon man tey dinaa xew bërki démb bañ koy mayee dafa defoon réception bu rëy sol na fa juróomi sol def na décoration bu rëy kon man dinaa ko def loolu du mbir dama leen di nettali xissa bu xoromo bu xoromoo xoromo koy laaj xuutaayu ndox mi fu mu toll giléem ne ko ci ci wóom la toll ci wóom béy na day jéggi dafa dox ay jéego yu ndaw rek ndeysaan ndox mi bëgg koo muur mu lu góorgóorlu lu ba génn di xefet nag yàq lu mel ni xeme giléem ne ko lan moo tax nga di ma nax ne ma ndox mi ci wóom la toll te toll fa giléem ne ko ah kay ci wóom la toll waaye ci samay wóom laa wax waaye waxuma say wóom yéen mbokk yi xiste bi lan lay jaay mooy gis nga moytul di roy nit ci ni muy dundee ak ci ni muy doxalee te yéen ñaar bokku leen dundin bokku leen doxalin gis nga nit bala nga koo roy ci doxalinam ci dundinam xoolal ba xam yéen ñaar yéen tolloo ba xam nawloo ngeen bu baax a baax kon nañu delloo si waat suñu xel bu baax a baax nañu wàññi xew yi yow góor yow mi takk soxna xamal ni bokkut ci fulla ak fayda liggéey lu tollook juróomi at xëy yamale ko cim xew loolu xel mu rafet du ko nangu mukk ba ilaa yawmi diin kon bul dof mukk yow góor jigéen jaral la nga liggéey juróomi at yamale ko ci mennum xew xëy commencé waat à loolu moom bu ko def mukk bu la ko jigéen jaral fi réew mi tollu ak jafe-jafe dund yi ni mu mettee nga xam ne boo takkee soxna yow gannaaw ba lala la cay waraat ni mu baree ndax soxna à vie la man su may takk soxna dama koy takk ngir lan dund ak moom ba ba ñuy faatu foofu mooy teraanga ja foofu mooy teral jigéen waaye teral jigéen ci benn bis bi nga xam ne moom laa ko takkee déedéet wax naa ko léegi jigéen teral ko mooy boo xasee ba takk ko ba indi ko sa kër wala boo xasee ba takk ko moo xam fu mu manti doon na nga koo suturaal na ko yërëm na ko warmaal na nga ko def ni sa bopp loo am bokk ko moom loolu mooy teral jigéen waaye bu fekkee jigéen dafa dof woyof bopp ba yaakaar ne teral moom mooy xew-xew mu rëy teral mooy ñu may ko may gu yaatu bu am doole mbokk yi loolu boroom xel mu rëy du ko def te ñu baree bari ci ñi nga xam ne ñooy xew-xew yu rëy yi nit ñi di ko coow wallahi ñu ci bari boo leen xoolee seen sëy ba demut lu bari ci ay problème lay dëkk wala nga gis ko sax des fois ñu dem ba ci biir ñu ne sëy ba yam na fa loolu gis ngeen ko ci seen koñ yi man gis naa ko ci sama koñ yi mbooleem nit ñëpp gis nañ ko jàkkaarloo nag ñoom kon nañu bàyyi xel loolu kon sëy sëy ba ca ëpp barke mooy sëy ba nga xam ne bariwuti coono bariwuti fere loolu nañ ko gëm ndax ay jullit lañ te yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo wax loolu kon nañu bàyyi roy dàq nañu bàyyi roy dàq te góor ñi nañu am fulla te kilifa yi jigéen ñi ci jëmmi boppam kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi bu nit ñëwee ñaan la sa doom nga may ko ko ngir yàlla amal fulla ba kenn du fa organiser xew yoo xam ne da nga xam ni kii nga may sa doom kat dana ci fere loo xam ni wax dëgg yàlla àttanu ko mënu ko loolu kilifa yi ñoom ñoo war a am responsabilité boobu yow góor it nga am ful lay taxaw ne kii ñu ma may kat bañ ma koy may jaay ñu ma ko ndax léegi daa mel ni waxaale moo am ak jënd jigéen waaye mayatuñ la ko yow góor amal ful la ne kii dañ ma ko may jaay ñu ma ko bu fekkee da ngeen ma koo bëgg a jaay ngeen wax ma. ba lépp luñ la nar a chargé ci ay xew ci ay can ak ci ay laaj te attanoo ko nga taxaw lànk ko ku bañ sa moroom nangu Alioune Sall waxoon na ni jigéen boo ko bëggee wax ko ne ko dama la bëgg mu ne la bëgguma la bul ca yokk ab baat laggal wuti sa moroom wuti moromam waaye damay wax ni jigéen bu fekkee nga xam ne danga ko bëgg ñu bëgg yokki say poos laaj la loo xam ne attanoo ko seen waa kër attanuñ ko ba ko fi na ko fi ñukk dem wuti moroomam balaa yàgg nga wut ko nga am koo xam ne macha allah doo ko sax gëmee ñu ngi jéggalu bu baax a baax wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahuma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk lakum shukran lakum sunu mag ñu baax yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ dee